Boubacar. Ah. Euh, yaa may làkkloo ay tubaab sax. <laughs> alors yow bokk nga ci ñuy tabax la coalition Yewwi Askan Wi nga quitté ko au lendemain euh, après les élections locales lu waral nga nga nga quitté. non man vraiment bëggatuma du dugaat ci débat waa Yewwi Askan Wi quand même. dama bëgg a xam. non non loolu je l'avais déjà di et redit. dañu ànd monter une coalition on a fixé des règles ces règles ont été violées on est sorti. mais terewul on n'a jamais fait de critiques contre Yewwi Askan Wi la preuve ñun les membres suñu partie ñu bare ci Yewwi Askan Wi lañ leen investir ñun les les conseillers yu ñu am y' a plus de cent et quelques conseillers yoo xam ne yi ci liste Yewwi Askan Wi lañ nekkee conseil donc il y avait des divergences nous on sorti et après le parti est sorti ñu dem suñu yoon mais est-ce que tere na ñun bi législative yi jotee. ñu taxawal suñu conception pour am intercoalition Yewwi Wallu ma dem seeti waa PDS seeti waa Wallu dem seeti waa Yewwi ba ñu def intercoalition. xanaa déception déception élection locale yi à à Grand Yoff moo moo moo moo bokk na ci li. non non non ça c'est une conséquence. Grand Yoff dañu fixer ay règles pour naka la ñuy tabbee candidat. règles yooyu la ñu deful ñu xaar ba jour ba 16 heures ñu ne kii la ñu tabb sans respecter les règles. au niveau de Grand F la section de Pastef ak waa Jéngu ñu décidé que man damay nekk candidat ma nekk candidat mais y avait la grosse machine de Yewwi qui était là boo xam ne on a fait sa promotion pendant des mois moi je suis resté neuf mois à attendre may xaar investiture far ñu ñëw ñuy ma boobu man waxuma candidat la ñu naan ndax candidat nga ma ne noo ñun Yewwi la ñu bokk dañuy xaar c'est le au dernier moment lañ ko def donc on ne pour Yewwi mënatuñ ko def y la machine de Yewwi ki a gagné tant mieux mais ñun loolu c'est pas un problème pour nous san loolu terewuñu bi ñu waree defaraat législative bi ñun intérêt jiital li ñu jiital du intérêt personnel. mais mais mais, mais politiquement est-ce que def nga lecture bu bu baax bi à l'époque parce que euh, Grand Yoff c'est le c'est le fief consacré de xalifa Sall mu teg fa un maire un maire boo xam ne il avait un bilan pas mal. et puis mu amoon de fortes chances euh, que bu fekkee ne yeew yi dafay tabb dafay miser ci ki nga xam ne kooku lañ jàpp ne. moo war a gën a mën a. Euh, remporter l'élection je veux pas m'attarder sur non Boubacar nag il faut nga attardé parce que. non euh, donc, fait une rétrospective dañuy waxtaan. ok mais voilà, mais dafa am loo xam ne dafa am loo xam ne lii. waaw ah. Yewwi règle li ñu fixé woon amul ëpp chance amul ñàkk chance machine Yewwi en son temps ku ñu tabb nga gagné. ku ñu tabb nga gañe ñun li tax ñu accepter dugg ci schéma boobu c'était pas pour ñu tabb ñu pour ñu gañe non dañ ci dugg parce que il fale ñu battre pour enclencher dynamique gu cohabitation au niveau des législatives pour éviter troisième mandat pour que kaawu Khalifa euh, Karim ak Sonko soit réglé loolu moo ñu fa yóbbu woon et ce combat on l'a jamais abandonné donc ay affaire u bilan ay yooyu du loolu yeew yi ku ñu fa mënoon a da ngay gagné surtout Grand Yoff donc c'est pas ay problème de fief euh, Grand Yoff bu yeewi bu yeewi taboon Khalifa Sall tab sa Khalifa Sall c'est le candidat de Khalifa Sall qui va remporter bon ok d'accord ça c'est une belle fleur euh, ça non c'est pas une belle fleur non c'est moi je ne suis pas dans la prospection on parle du passé loolu nga wax on ne peut pas faire si c'est le passé antérieur le passé antérieur ça n'a jamais réglé des problèmes dans un pays li ma la wax c'est très clair en son temps on a pris la décision qu'il fallait on l'a assumé jël nañ ko assumé nañ ko te au moment ñu am na ñoo xam ne xam nga lañu ñu doon wax yéen yéen a ñàkk a fii fi yeeyu amee doole mënoon leen langaamu rek ngeen topp ci ñun du ñu fonctionner noonu on fonctionne sur le principe on a perdu des opportunités am ay députés am ay ay ay ay maires mais terewul on a existé et on est resté droit la preuve fu mu mujjee dañu mujj di tojante bopp te li ma leen waxoon yëpp gis nañ ko donc kooku moom seen une page tournée demal ci li gën a bees gën a xew gën a.